Moustapha Seck ñu delloo ko nuyoo bu baax a baax sëñ Ablaye euh, bayit wi mu tolloon dama la caa taxawloo woon nga jàngatal nu ko muy ak ubbeeku gu am solo mu ne wa zakki lubbi waftahan rabbiliya fathan mubinan laa yuraa limisliya nga leeralaat ñu ab yaat boobu sëñ Moustapha dooru wéyal waaw jërëjëf sëñ Moustapha ci njàng mi mm-hmm. jërëjëf sëñ Hamidun jërëjëf sëñ Jibril Ndaw mm-hmm. kàddu yi fi rot yëpp rafet na mbokk yaa ngi koy rafetlu yàlla na yàlla fay ñëpp yiiw sëñ bi lii mu wax mhm. moom la ko yàlla defal mhm. wa zakki lubbii mhm. lubb mooy firi xel waaw yàlla maa ngi lay ñaan sama xel na ko ñawal maa ngi ziar sama mbokk sëñ Abdul Ahad Saane docteur ku bari xam-xam macha allah te dañoo dajee jamono yee bu yàggul ci tëngeej sama soppeel daf may bége man dama ko def professeur bokk nañ raw ci yoonu murit ci xam-xam nit ku baax la ku bari xam-xam mu ni ma sëñ Ablaay bu nu tegoon fële sëriñ Touba miracle yi mu def maanaam karaamaat yi mu def waxuñu sax dëkkam beeg maayam yeeg yépp waaye ci am xel mu rafet xel mu rëy xel mu yaatu xel mu raw jamonoom rek li ci sëriñ bi am ginnaaw yenant bi alayhi salaatu wasalaam mësee futa gis ku am lu ñu toll ci xel ma ne ko wallaay wax nga dëkk mu ne mu sëñ Tuubaa rek la kenn amul xel mi loolu nag li ko may mooy da koo ñaan yàlla suñu borom mi tëlewul ci dara mu may ko xel mu mel noonu xam nga sëñ bi dafa wax ni lu lubbi mu nawwarun bi nóoril wax yi qaada lii xayral ulumil yi nee na yàlla sama boroom sama ñawkat xel da koo leerale ci wax yu bi mu daan wàcceel yenant bi alayhi salaatu wasalaam ku ne xam na ni wax yu moom la ab yanantu di am yàlla daana ko jël di ko transféré yanantu bi ci xelam nga xam ne day xam lu fàddu xam lu war a ñëw ëllëg xam lu kenn dul mën a xam loo jàng-jàng boobu wax yu nag mu daan am sëriñ bi nee na yàlla may na ma ko man li tax sama mbind wuuteeg bind yépp mooy su may bind wax yu bi yàlla daan wàcceel yanantu bi liggéeyal naa yanantu bi ba may ma boobu may nga xam ni jagle la mhm. sama ñaw ka xel ñu ngi ko leerale ci wax yu bi mu daan jox yanant bi mhm. lu bii mu nawwarun bi nóoril wax yi mhm. wa qaada lii xayral ulumil mox yi matam mboolem xam-xam yi dundal waaw nga xam ni mooy xam-xam yi am njariñ loolu la ma yàlla jox man Cheikh Ahmadou Bamba fii nag mu wax sunu borom ni ko ah, wa lubbi wa zakki lubbi yàlla maa ngi lay ñaan na leeral samam xel mhm. nga xam daa day ñaw lool damay mhm. xalaat kenn du ci mën a egg mhm. oo tax sëñ Touba su ma saa wax rek waxam du niroog waxu kenn mag mu la ma sa wax sëñ Touba nee na sama baay waaye wala sëñ Touba nee na ma bis sàngam saa suñu génnee wax ji ci pénc mi ëskay rek nga cay teg ndax da lay yéem wax ja dafay ràbbaloo yéem la lool léegi laa koy fàttali menn mbokk ci yoon wi fekk ma naan ko tooñ baaxul sëriñ bi bi muy jógee Jolof di ñëw njaari 1912 guddi gi mujj def jataay ak mag ñi di leen dénk fa ñu war a jëm ëllëg di njaareem fa la war a dem mag yéen buñ fa demee nañ fay nekk dafa dénkaane woon juróom yu mat a xam wala juróom benn dafa waxoon ni képp ku bëgg a jege yàlla sa borom na nga takkoog di jàng alquran te bu ko wutal ab képp ku bëgg a jege yàlla sa borom na nga sax ci jàng alquran te bul ko wutal lim foo toll na képp ku bëgg mucc ci mugalu bàmmeel bàmmeel raglu na tiitlu na ku bëgg a mucc ci mugalu bàmmeel na bari looy julli ci yenant bi alayhi salaatu wasalaam salaatu ala nabi te bu ko wutal app muy ñaar képp ku bëgg wërsëg yomb la lu la yàlla wërsëgal na nga ko joxaat yàlla ci jaamam bi dafa bàyyi xel muy ñett képp ku bëgg mbooloo di la topp pexe du la may mbooloo na nga tege ci yoon ndax boo tegee ci yoon faw nga am ñu la wéttali boo tegewul ci yoon nag fii fan la rek ngay mujjee te boo réerlee kenn du ko for mën la koo yëpp doo dab kenn kenn du la dab doo dajee kenn ndax dangaa ngaa jaar ci ñàll jaaroo ci yoon mu teg ca ni képp koo xam ni bëgg naa mucc na bàyyi tooñ kuy tooñ du mucc mukk te kenn mënu koo fàggul mucc tey ak ëllëg mu ni képp ku bëgg noppalu na bàyyi fayu ku dul bàyyi fayu doo noppalu te kenn mënu laa noppal mhm. yii wax waxi Cheikh Ahmadou Bamba la mhm. kon yooyu yëpp day jàngale ma bi daan génn ci moom mhm. xel mu rëy mu ko yàlla defal leeral xelam da koo ñaan suñu borom nangul ko lool kon wa zakki lub bii yow yàlla na nga sellal samam xel na ko sellal na ko ñawal lool waftaxan rabbil yaa yow yàlla nag ma defal fatxu nag ma ubbi xam nga ko yàlla ubbi moom dara dootu la ump nag ma ubbi ndax yow ko ubbi defal ko fatxun mubiin day jàkkaarloog yi fàddu jaam ñépp ma koy xam nag ma defal fatxu fatxu boo xam day nekk fatxan mubiinan ubbi goo xam ni day bir ma xam lépp lu ubbi ma fii ak ba àddunay tukki xew mhm. lii moo tax sëñ Touba daa wax loo xam ni mhm. ci téere bi ci kanam dinañ ci dem bi mu demee ci jumaay mhm. wax ji ni moom jàkkaarloo naag jumaay Touba ni muy meet ëllëg dëgg la ndax mu ngi wax banaan sax na nga ma fayal ñi defar jumaay Touba te bi muy woy xasida gi ñëpp xam na ni Touba la ko woy ci sanc bi booba taxawalagul yoonu tu jumaay Touba ndax jumaay Touba sëriñ bi bàyyu ko fi ci ginnaawam lañ ko defal jumaa ji ci ndigalam sëñ Modou Moustapha ko sos sëñ Fall ko àggale léegi ñu murid yëpp xam nañ ko. kon su mënee jël fi'lul bi di wax yow yàlla na nga ma fayal ñi nga xam ne ñoo ma liggéeyal jumaa ji. te waxul fi'lul mudaari mooy luy war a ñëw ëllëg. dafa jàkkaarloog li am ba noppi. dëgg la waaw léegi kon. mu ne nag may fat boo xam ni bu bir lay doon. boo xam ni laa yuraa li misliyaa. kenn du ko gis dee fu ko gisati. ci keneen ku dul man. dëgg waaw ah, mhm. lii yàlla ko nangul mhm. nag ma may fattu boo xam ni kenn du ko gisati ci keneen ku dut man sëñ Tuubaa loolu nag jaam sañ na koo ñaan yàlla ndax yenentu yàlla Suleymaan euh, alayhi salaam bi muy ñaan yàlla nguur dani ko fa hëb lii mulkan laa yanbaghi li ahadin min ba'di dégg nga nag ma may nguur goo xam ni dootul yell ci kenn mu koy am sama ginnaaw te mhm. Suleymaan am na nguur gu kenn amul kon nag